Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum suñ mbokk internet yi asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum waa diaspora gannaaw dañ leen nuyoo nag di leen jégalu waa nag xam ngeen ni sàmm ba gëj naa door xam nga dañoo nekkoon liggéey di leen nuyu di leen jaajëfal bu baax baax a baax a baax ñi nag ah, li fi amoon nga xam si ni xeex beeg kulo beeg ah, yàlla yamale ko fi mu jeex tàkk Sénégal nekkaat si jàmm nga xam Sénégal jàmm rek lañ ko xamee woon. Euh, tey nag seen émission Sangomba euh, day dem rek di jaalewaat euh, sénégalais yi sunu papa yi nga xam si ni moo fi jóge muy papa ñu koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla xaare àjjana si barke Seydina Mohamed émission bi nag ngi siy ànd ak comme nan kan daan àndal muy Seydina Omar borom jaasi ji nee naa leen nag ah comme di la Sangomba Sow rek da ngeen di ree ba sonn rek ni ngi ñëw indi leen lu bees tàq ma bàyyi Omar mu nuyoo. jërë ngeen jëf suñu mbokk yi ñu leen nuyu bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a taam fii internet. Salam Vision seen émission Sangou Mbeur xam ngeen ne man dama ci wéet ndax dama ci ànd ak ki nga xam ne nee naa la Sénégal gépp ko bëgg muy sëñ Pape Sow nee naa la yow di bokk ci yow plateau sax day sedd sama xol comme ni ko waxee noonu la ñu ngi jaale bu baax baax waa Sénégal gépp li nga xam ne ni yàlla dogal na ñun ñëpp ko bokk. ndax ki fi jógee kenn ku nekk mën nga koo jaale sa bopp. waaw papa waaw mu suñu papa ju baax jooju noonu papa Thion. waaw ñu lay ñaar. baax a baax a baax nga jëm yàlla na la gënal fi nga jógee amiin amiin bàcci suñu duwaay ñu la koy ñaanal bu baax a baax di masawu Sénégal gépp xam na àdduna nag moom lu métti yàgg na fi. waaw lu métti yàgg na fi. Mm, àdduna moom lu ah, mm-hmm. sa papa. Mm-hmm. naan yal na ah, jamono ji xam ngeen ni gën a a métti la nag ah, moo am na tiis dal na sa kaw. métti mm-hmm. na ah yàlla mooy dëkkuñu fi. billaay. àdduna dëkkuñu fi. waaye waaye kat ba naan ku sànnaa fees rek nga dem rooti euh, Seydina Omar. wallaay ni ko waxee noonu la ba tax na ko Waly Seck ñu ngi lay ñu ngi lay jaale ki nga xam ne mooy sa papa jooju noonu ah di ko jaale Sénégal yëpp daal. Mm-hmm. waaw di la ñaanal yàlla na yàlla may xol muñ. waaw fa sa papa féete woon njaboot bi yàlla nga ko féete fu ëpp ci waat si nduwaat. waaw waaw kay waaw kay ñu ngi leen di jaajëfal waaw. ñi moom bu ñu nekkee émission rek ñuy woote man. ñu daal jaaxal nañu ñoom balaa ñu mën a woote rek. danaa hmm. danaa nekk émission. billaay billaay waxati ko. waaw loolu loolu loolu tamit war nañ cee wax. wallaay waxati waaw kay comme kàddu gaan bokk. waaw ah, ah, comme ah, ni ne amaane mbégte ak hmm. hmm. lu mu suñu état bi ñu ci nekk man xawma dañu ma yàpp xawma dañu ma miin man xawma lan la. maître El la.

ñaaxal loo tamit nee na mooy si de. dama yow dama koy jox aadama boos de. yow kooku moom sinap moo ko moo laa koy jox mu dugal. moom nekk na nit koo xam ne nii sinap ci la ko ñëpp xamee. bi. Eh, eh, eh. <laughs> ñaa kay <laughs> muy bi def ñu fi xale yooyu ñaa xale eh, ñaa ba loolu ñaa loolu baaxul. baaxul baaxul man de man de gisee man de village yu gàtt yi yu njëkk yi non ñaa da ngay tawoo de. yaa ngi may or yaa ngi may. xam laa ilaaha illallaah. sa dafa ñëwaat ak yeneen i feem. ba ngay wax. loo ci xamul. Hmm? yeneen i feem la waaw waaw waaw ko. Hmm. nuru ko. xam ngeen ni saa su ne nee naa leen ci kër gi la waa kër gi la. Mm-hmm. Salam Vision moo mel noonu. barke yonent bi loolu la jaaxal ne woon Salam Vision. lépp loo xam si ni jaaxal na la. yow daggal li nga doon def nga ñëw si Salam Vision. lépp fi lay xewee. billaay walaay taalaay. lépp fii lay xewee lépp lépp lépp lépp. Mm-hmm. mais Omar noonu dafa police dagg dagg mu dagg loxo bi loolu ñaaw na. waaw loolu moom ñu ngi koy ñaawlu bu baax baax a baax a baax. loolu ñu ngi koy ñaawlu waaye nag li ma jaaxal mooy waa état bi dañoo tiit ndekki Sonko nii la amee doole. yii Sonko kay yéex naa ko. man musuma xam ne Sonko. mu bàyyi mu bàyyi yóbbu. Sonko dafa wax dëkk bi Sénégal ñëpp génn. mais Sonko daa mel ni moo moo kii de. ñoom instant bi dañoo tiit de. mais Sonko nag am na lu am yow Sonko nag da ngaa bëgg lu yomb de. Hmm. nga iri a booy bi. def la ngay def ba pare fi mu nekk nii ba soxal fi mu nekk nii yéen a yëngal dëkk bi. fi mu nekk nii ko la mooy Sonko la. est ce que Sonko la waaw la. so ah, Sonko. ah man nga lan la la lay ñaan. Macky Sall bëggoon la fay nga woote askan wi yëpp génn jàppale la.

ñu ñoo la gën a bëgg lu neex foofu. mais Omar soo ni Omar waaye damaa bëgg nga wax na nga doon dundee sa guerre ba loolu année 64 65. année 64 waaw waaw waaw. li ma lay wax ni man ak man ak Modou ak Laay ak Papa Ndéla ñoo doon ànd. man dégg naa ko. waaw de ah, ah dégg naa ko. dégg naa ko xëy na dégg naa xëy doon daw 800 mètres par seconde. man ay Thiès laa ko doon daw. ay Thiès Thiès. waaw demal ba pare rek loolu nga doon daw man maanaam li nga doon daw dama dama ko dama la. man boo jaaree tëb ñoom ñoom Fall xaaral mbaa sa wetu benn loxo. yow est-ce que doo wàññi ñu la gaa yow. man noonu ma lu ma doon daw ak li ma dundee woon sa gerte nga xam si nii ah may sëtu mu nga dunda te maa lu démb ku nag ndëgëm ba te ñooy ñëw borom ngàll gi nga ah, dunda sama maam la demal. man maa la gën a xam fii daan daw 800 mètres par seconde di ko àndal Modou Bié ma bàyyi ma fenn ñu ngi may dem naa fi sa dëkk yooyu ma la limal yëpp ci deux secondes. ok ok yow yow lay wax nit ñaa ngi lay dégg. non soo ko weeree ay fen na ngay fen ay fen foofu laa mën a yem jëlal. waaw yëpp dawul fenn. jëlal foofu laa mën a yem. dawul fenn fii laa départ fii tali bi ma. moom ma xam ay ay ay laay ay ma xamul ñooñu ay tàppe lañ mëkkat suukar ay mëkkat suukar ay tàppe lañ ay ragal wax yow doo ma bàyyi. ay waay ay waay suuf lañ fii laa déparé xale bu mag sama doomu ndey bu naan Baye Balla. Baye Balla man. ànd ak sama beneen doomu ndey bu naan Jami Fall ma nga fee si Pikine. yaa ngi dégg. su ma waay yow doo eh, man waa Pikine nag may seetaan waa Géej waaye kon du ma du ma fen. waaw ah. lan ay continué maa ngi ànd ak euh, pour naan Modou Ly ak Ibou Seck gis nga bi ma déparé fii damay daw romb dem ñaajo ñëw kees ay dëkk de ay ay ay ay kii mu tudd waaye <laughs> dëkk bi na ah fàtte ma ko de fa kii mi waaye dëkk bi waaye cinquante ñëw kees romb kees ñëw Tivaouane romb Tivaouane ñëw Pire romb biir ñëw ngaay romb ngaay ñëw ndànn romb ndànn ñëw Kébémer ñëw mu ma ñëw mbi jàddu koñ dugub guy mbay ngay jawaar daara jàkkul daara xara xara nag te ay ceeb laa ko doon daw xol këf ak ma yegg naa ko yaa te loolu yëpp sama maam daana daw lu ko ëpp loolu waaw rek man booy waxee sama maam kër ñi kër kër. xam nga maçon yi ndeysaan tabaxatuñ kër. bu njëkk ba kër. Euh, nan di bayal la la sama maam amoon. dañ ni dañ koy commandé kër kër. R plus 4 lañ koy commandé. Mm-hmm. dañ ñëw fi ba comme bayal bi boo génnee nii. bayal bu ngande muy tabax kër. tabax kër ba kër gi ba R plus bi pare. ñu ko bërëb sàngam laa bëgg kër gi ne dem am tali boo fa demee ne am na benn immeuble bu nga ne kër gi fii la nga boo paasee stade Amadou Barry. man kër gi foofu lañ ko tabaxee. ko jàppoo ko. fii. sama du fu lool sama da kay def. kër la. ñoo ñoo ba tali bu ba tali rek ñoo ba tali bu mag. may ma tuuti ma jël ma. kër gi daal wàññi. ah daal dem ba ah sañ ngaa toj gi sa ah sañ gi. xam nga yëpp Sénégalais yi weesu woon kii taxaw fii di wax ay wax yoo xam ne histoire yoo xam ne bii xamu ci lenn lenn lenn lenn lenn dama lay nettali sama waa ji nga xam ne dañ ko may soxna waxuma la ko woon sama waa ji dañ ko may soxna. Hmm. biñ ko mayee soxna.

non sama picc mi nag ana sa bopp suñu ko mi nii mais waa mooy sëy soxna si ba mu naa ko bébé soxna si am ana sa numéro boobu affaire ana sa numéro am sa moo gën a yenu li nga wax ni moo gën a yenu li moo gën man quatre-vingt-seize laa tàmbalee xeex di dem guerre dem di xeex quatre vingt waaw am na xale boo xam ne su ma waxee ren bala may wax ci déwén. ndeysaan. dëgg la. maa ngi diggante Beloxor Mbalaxaar Ndoumbédoune Fandoukou euh, ak dëkk Ablaye Sow bi. waa dëkk yooyu fan lañu nekk sax. dama gannaaw gaan bi. gannaaw gaan waaw. gëmal góox xam nga ko. dëkk bu ñuy wax gëmal góox. gëmal góox gëmal dem géeri mais mënu ma faa dem. ah mu faa dem. xam nga itilaire.

ba tey. 1920. 1920 léegi da nga may yawal foofu noonu. 1920 yooyu noonu bul ci yokk bul ci wàññi taxawal na foofu. Mm-hmm. bu loolu jàllee man dafa am fan yi loo xam ne nii dafa tëj sama bopp bi. Mm-hmm. maa ngi koy desaaka moom ni lañ koy bàyyi. mu waxatee rek saa bi tilim war na war. man daal maa ngi koy moom moom bu bu mu wax su Sonko. ah moom daal sonal na Sonko daal moom daal moom daal. moom Kër gi tey moo yem yow benn son nga fi génn son bi laata la moom sax fàtte naa son ko daal ni mu sonalee Sonko dëgg yàlla man jaaxal na moom daal dafa jàpp Sonko sës ko si tabax bi nga dee ko bàyyi. waaw ah, li nga def léegi ci seen ah, moom bàyyi ko ba population bi du du këram rek. Ah? bàyyi ko ba population bi du këram rek. na nga bañ a noppi rek ak sa gémmiñ bu nga ne mel ni poosu caay. waaw yow kii daf ñoo yàpp. kii sa saaka boobu rek ko war a saaka. maître El Hadj Diouf naan moom yow la. moo tax mu génn sax naan ay sénégalais dañoo dañoo ginaar yi dañoo toog fii di ko lekk ko doon lekkee man daal moo tax suñu bi doo. maître la la war a def nga dem poosé ci sa bëñ yooyu sa bëñ yi bari. géew yi sa si ñu si ñu gu féex amoo bëñ jamonoy Abdoulaye Wade nga amoon bëñ. dana nga amoon bëñ ba sa nga nga mel ko ku lokk ay per. gémmiñ gu mel ne poos xaftaan. maître El Hadj Diouf da nga débat bi day wax ba kii nii sama ma xam. dañ bi mu waxee daal mel ku ñuy dëppal. man nag li ma gën a métti maanaam dafa pelante moom léegi pelante bi moom kan la ko jox. waaw pelante comme que président comme que gars yi ñoo a jaaxal ah, ah, ah? li ngeen def da leen ci seet yàlla. kon na dem. ñoo leen di seetaan. kon li ngeen wo li ngeen. ama wax la gars def da leen ci seet yàlla. ah ay la ñoo leen di seetaan lenn rek laa bëgg ngeen xam ko fecc kat Macky Sall bi Antoine Diome génnoon na fi. bay fecc ak moom nee na ay bandi ñoo ñëw ci dëkk bi. yi génn di wane seen bopp mu ne ay bandi ñoo génn. <laughs> ay bis bu ñuy dem. Ah, man loolu moom ma gën a métti. man damaa ragal sax duñ jël ñu forcé daal di pare. fa la ñuy mujj nag waaye Sénégal jàmm fi xaj. Hmm. seen communication nag moom. war ngeen koo xoolaat yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci état yi. mooy dëgg la dëgg la parce que des fois da ngeen di juum. waaw bilaay da ngeen di juum da ngeen di juum da ngeen di juum waaw da ngeen di juum. man bàyyi ba doon bàyyi ko fufa bi rek ba xew yi amati ba nii dem si génte yi damaa gëj a baaraam bay ah gën naa fecc. waaw ay jamono yi waaw waaw loolu tamit loolu tamit wax nga lu am solo fecc jamono ji fecc amul Omar waaw sa ay fecc ak loolu lépp xam nga dafa war a am ndax am na ci ñoo xam ne nii ci la ñuy mën a am sax as weccet boo boo xam ne nii dinañ ci mën a. ndeysaan sama taas sama taas bu daan taas jàppal ma gaaw. ayca demal. demal. ndeysaan ma ni sa sa day métti sama ah, comme nag yóbbul sa bopp. ma ni du ko tukku jekk ñam wax ñam wax yi. tees ñi naan ñaax yi baax ñàkk wax ñàkk a jëf. loolu waral sëriñ yi ku sa nit li bàyyi doy doxte la xaaral yi ban di la ba mox ku wér ku njoowaan dangaa nar a feexlu ba fa del Sonko laa ko may loolu Sonko waaye ay boo xew ubbeeku woon nga xam. ah ci bàcc nañ ci ay foofu. moo xam ne ko yaay ah. yaa dëkkee Gàmbi te ñeme lu yaay Samba Sagna. Ah, yaa yaay Samba Sagna. Sonko yaay Samba Sagna. Sonko yaay Samba Sagna. ah, ah de. de da nga may toroxal si digg Sénégal yi war nga hmm. uh-huh. ah, man damaa jaaxle naa man xam nga ni jaaxle naa ñu ngi may signaler ne heure bi heure bi heure bi. waaw waaw waaw ñu may signaler heure xam naa ko dañuy tàggatoo. ni nga ma def fii émission sàngu ba bu beneen tàggatoo waa di amaan mbégte bu baax a baax di jaale Sénégal gépp ki nga xam ne moo fi bàyyi ko muy Papa mm-hmm. waaw ñu ngi koy jaale Sénégal gépp waaw di sant waa Vision mm-hmm. ak Samba bi nga xam ne moo nekkoon ci wàllu kii bi nee naa la nee la nee la ñun famille dëgg la fii wax dëgg yàlla plateau bi boo fi ñëwee da ngay lekk da ngay naan café wax dëgg yàlla café daal ay Baye Fall daal ñoo fi ne. waaw fi da ngay naan ah, waaw fii ay taalibe seen Cheikh Oumy. waaw ah directeur mooy jëriñ. ndeysaan directeur mooy jëwriñ mooy jëwriñ seen Cheikh Oumy Baye Fall mooy seen jëwriñ moo xam nga moom dafay yàq moo tax ku ñëw da ngay bokk si sàmm mhm. yàlla lan lay bàyyee yàlla guddal soo fan la waaw moom yàlla lan lay bàyyee yal na yàlla guddal soo dëgg la ni nga waxee noonu la maa ngi sant ñëpp mhm. waaw di sant sama yaay Ami Diagne ak sama ak sama famille papa waa Kër Ndiak ñoom ñëpp maa ngi leen bégge bu baax a baax ak Ndiaye fàttewuma la Ndeye ak Mbaye Diaw nday daw yéen ñëpp maa ngi leen di bu baax a baax. Mm-hmm. di seen wàccuwaay di lay ñaanal jàmm bu baax baax ak papa Ndiaye ak yéen ñëpp kenn ku maa ngi lay bëgg bu baax a baax di seen wàccuwaay di lay ñaanal jàmm bu baax di ko sant waa leen kumba. eh fàtte naa mun ma kii sa sant ma ki nga xam ne mooy caama. caama waaw caama caama maa ngi lay nuyu la. maa ngi bu baax a baax. caama caama caama nuyu nan la. ok caama caama nuyu nan la. waaw caama waaw. Euh, jigéenu Omar. Mhm. nuyu nan la. ndeysaan ñun tamit la ñuy def rek. ak Modou Beye ak Modou Beye ak Abdou Dione. mooy yi ngay nuyu tàppat yooyu. Modou Beye ak Abdou Dione Modou Beye Abdou Dione ñu lay nuyu. ak am fàttewuma la am. am ñu ngi lay nuyu. waaw nee naa la yéen loolu la ñawul baaxul. ndeysaan yéen yàlla na seen ah, jàmm. kon ñawal leen ma. dégg nga maa ñawal. ñawal la ñoom dama lay boole. ah ñawandeel ba Modou du Modou Bey. Modou Bey ak Am. ah Am ak Modou Bey. ñawandeel ba ak ak Abdou Dione. Abdou Dione ah seen waa ji. ñawal ah baax na. ñoom daal ñoom tey maa ñawal. du ñawal baaxul. ah ñu amal mbégte ak contentement. di di leen euh, di mbégte taamu gi yéen ñi taamu si si Salam Vision. waaw jamono ji xam nga ni jamono ji dafa métti woon. moo tax sàngu ma daw laaxatu woon xeex beeg ñoom seen Omar sax demoon na doon xeex. <laughs> waaw ñu dóor ko ma <laughs> seen mais def si jàmm ba nekkaat suñu affaire. Mm-hmm. dañuy ñaan rek yàlla mu continuer noonu. Mm-hmm. ndax Sénégal fii jàmm fa xaj. jàmm jàmm jàmm doo nga fa xaj. Sénégal da luy. si ngeen tey Papa Thioro. Mm-hmm. anam dem na bàyyi ñan fii. Papa Thion mi nga xam si ni moom euh, danaan xam si ni moom euh, dara ñoru ko lu dul euh, Sénégal taal bi Serigne Touba na nag. dañ koy ñaanal nag foofu nga jëm yàlla nga fa dajanteeg yonent yàlla Mouhamed ak Serigne Touba. Mm-hmm. ñu nga dem àjjana yi gën a neex nag Papa Thion loolu lan lay ñaanal nag gudd fan dina ñaanal nag yàlla xaaral àjjana nag di ñaanal Wally Seck. Mm-hmm. yow yàlla yàlla yàlla guddal soo fan. Wally yàlla na yàlla may xolum mun. si darajay Seydina Mohamed. waaw dëgg la ni ko waxee noonu la waaye damay jàllale wàlla benn message. Mm-hmm. muy sénégalais mm-hmm. man maa leen ko ñaan. gis nga nit da ngay sa xel. Mm-hmm. parce que nit mënta génn àdduna. nit mënta génn àdduna nga yëkkati sa téléphone di film. am na dafa am ñoo xam ne nii yow téléphone da leen a wàcc. ndax ñoom lépp luñ gis sa jàpp nañ ne ñoom war nañ koo mën a film. du yoon du yoon du yoon. gis nga bu nit wàññeekoo. néew dina toll foo xam ne ni ay mbokkam dong ñoo koy jege. laay laay waaw mais yow mi nga xam ne bokkoog moom ah ngala boo ñëwee taxawal ci ginnaaw loolu moo yëfi nit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. la war jàllale nga message bu baax a baax di gërëmaat ñëpp di santaan ñëpp. Mm. di leen joxaat beneen dig daje sàmm ba di leen wax na koor gi ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw si koor gi ngeen kon ne saa bu ndogoo rek dee leen ñu seetaan ñu dee sant seen ndogu wasalaam. ay ay